waaw yaa ngi wax problème mu. football bi dafa noyé sport yi basket bi moo noyé woon sport yi avant. ça c'était avant. Hmm. basket bi moo doon andi raay yi fii Sénégal. Hmm. ba nekk ko ba Dakar Arena bi sax ñu tabax basket bi tax ñu tabax ko. Hmm. ndax bi mu jëlee Coupe d'Afrique 2015 ci la Macky Sall ne dinaa leen offrir benn terrain de luxe ci la defee Dakar Arena donc mun naa ne basket bi moo sookee Dakar Arena. ay euh, recrutement Sénégal talent la mu sa am mhm. c'est vrai que IASU le talent yu bëri doon génne ñu ngi remercier ki nga xam ne ne sax euh, c'est le directeur de la haute compétition Léopold Germain Senghor ñu ngi koy jaalee yaayam bi gaañoo temps yële mhm. moom moo yoroon IASU bi te c'est un ancien basketteur doon ko doxal mais IASU bi dafa dee bi mu dee école yi dematuñ fa recruter les meilleurs talents et basket bi dafa soxla ay parce que c'est un sport qui est très réfléchi donc dafa soxla ay intellectuel moo tax même boo gisee à la NBA. Mhm. pratiquement boo jàngul ba egg benn niveau bi doo fa egg doo fa dugg moo tax dañ daan bàyyi ba xale yi gradué. Mhm. ngay soog a am chance dem defi draft. pour nekk un bon joueur la NBA. mais championnat NBA nga bëgg def. dama lay jox rek ah, exemple <laughs> kon bu IASU bi deewee. Mhm. c'est force que ñun tamit amatuñu talent boobu. c'est vrai dëgg loolu nañ ko waxante dëgg. Mhm. parce que gars yi xale yi jàngatuñu. dëgg la muy que football bi basket beeg lépp ci yem booy léegi man ni mu leen doxee reste à l'écoute lañu. dañuy <laughs> yeewu di entraîner di xaar ku leen woo pour ñu dem bitim réew. ñu ñu jël jàng bi sànni ko fële c'est ce qui est très ah, pas c'est même pas normal. parce que man fu ma nekk di fu liggéey mu site académie. Mhm. foofu la ñu former les plus grands talents di Sénégal actuellement foofu jàng bi moo doole. ñu bëri dañuy wax basket basket mais jàng bi moo fukk doon mhm. donc le sport les études avant le sport mais léegi ñun loolu moom mooy problème bi beneen bi lii football bi def nii c'est des centres lu ko mel ni ay jàmbaar ay génération foot des centres de foot ouais. c'est des centres de foot des académies ñoom ñoo yëkkati football bi ba mu am doole mais football bi boo ko doon seet rek mhm. amul championnat petite catégorie kenn du jouer sax benn match pratiquement xëy na ren lañ ko commencé amatul championnat petite kon fu ñu jëlee loolu ci école de football yi ñoo ko def école de basket yi am nay école de basket yu bëri mais dañ ko organiser wu. amul organisation amul organisation bu doy. loolu liggéey fédération la. fédération moo war a def loolu. du un entraîneur mooy organiser loolu. mais c'est la fédération.